FM li ci yéenekaay yi Sedima mi di aliment bétail jur gi ak jur gi tout ruminant di may sen revue de presse NCA assurance auto un savon de Marseille Alfa Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop sen gamme Opalia sen touray raktak bi rey yooyu ak USAID Break Action ñoo leen di li ci li ci yéenekaay yi Mamadou Mouhamed lañ ci àndal jërë ngeen jëf docteur Babacar Niang ak ministre Abdoulaye Diouf Sarr ñoo nga ca yoon soleil national xibaar ñu neen jiital suma assistance di docteur Babacar Niang li mu waxoon ne gaañi ñoo ngi jël matériel ak équipement médical yu état bi jënd ngir hôpital public yi di ko jaay clinique privée yi kàddoom yooyee waa ministère de la santé weddi nañu ko nee nañu amul yamuñu ca ndax it porté nañu ko plainte tuumay wax lu amul taxaw ci tànki xajamal liggéey bi ñuy def ngir xeex mbas mi loolee la ñu koy toppee moom docteur Babacar Niang yéenekaay bi ñu bëgg te di ko sàkku ci docteur Niang moo di li muy wax mu joxe preuve yi directeur des infrastructures équipement ak maintenance bu ministère la santé di wax ci xët mu njëkk soleil national ne li docteur Niang di wax loolee mënut a nekk matériel yi ñu jënd ngir hôpital public yi mënut a mujj ci clinique privée yi vox populi nañu Diouf Sarr porté na plainte docteur Niang bu suma kuréel gii di avenir Sénégal vox populi nee nañu li ñuy sàkku moo di ñu enquête mbir mi ndax nee nañu dafa war a leer ñiy jaay matériel yi ak ñi leen ci jàppale jàppaleeg ñi koy jëndaat ca ñoom ñu teg leen ay daan te waru tayam foofu Abdoulaye Diouf Sarr mi ñu dénk suñu santé na taxaw publiquement wax li ci am yëpp bu ko defee waa réew mi yëpp dégg réew mi quotidien xamal ñu ne waa ministère de la santé saisir nañu procureur bi démb nday mbili ji di docteur Babacar Niang ni ñu ci la quotidien li ma wax duma ci dindi lu toll ne tarfatal ay ni ndax lu ma xam la journal bi nañu waa Sénégal la ko wax ba wax leen ne bi ñuy wax dégg naa ko waaye gisaguma ko matériel médical dafa laaj ak leeraange maanaam traçabilité te bu dee ci ñu porté ma plainte lay jaare ngir loolee mën a am maa ngi leen di xaar docteur Niang ne ku nekk ci dëkk bi xam nga centre kër sëriñ bi boo fa demee matériel médical boo bëgg ñu la ko ñu génn fa te dugg ci La Tribune mi xëy dugg ci morgue yi ci réew mi mi ngi ñuy xamal ne buuxante bu mitti moo am ci morgue yi ci réew mi ndax variant delta bi bi mu duggee ci réew mi ak léegi ni nit ñi di dee jéggi na dayoo takk bi ci tirbin joxe moo di ci benn ab semaine rek téeméeri doomi aadama yu manqué benn corona bi faat na leen ci Sénégal ñàkk yi ñuy wax ci réew mi ak ñàkk yi ñuy wax waa réew mi docteur Tanaxa Ndiaye Dieye dib immunologue vaccinologue mi ngi ciy wax lu am solo ci laas ubbil bi nee na kenn mënu wax ñàkk bi ñaata temps lay protéger ki ko jël ak dose bu mu mënti doon nag nee na it li ñu naan immunité collective bu ñu ko bëggee ci réew mi à 70 pour dañuy ñàkk xale l'observateur ne ko xale yooyee nga tudd sax ku yóbbu tiital leen ndax pneumo-pédiatre bii di professeur Demba Ba nee na bu njëkkoon xale yi la ñu doon wax naan ñoo ëpp sens su mucc ci coronavirus bi waaye bi variant delta bi yegsee ci réew mi ak léegi yëf yi dafa sensé coronavirus bi mi ngi dal xale yi di leen sonal di leen faat journal l'observateur wax nañu it fukki milliards ak benn yu état bu Sénégal génnee ngir jënd ci fanweeri central oxygène ak juróom journal Le Quotidien xëy ñu rangaleel ci xëtamu njëkk ay bitéeli oxygène ne njëgu oxygène geeg ni mu yokkee dem ba jéggi dayo ak ñu bari ni ñu ci laxasee jaan état bi taxaw na ci régler ko réglementé ko ngir oxygène bi gën a jàppande ci centre de traitement yi defarkati gaz yi ci réew mi sax le quotidien nee nañu soxla nañu leen ci biir comité gestion épidémie bi source waa nañu am na ñeenti fournisseurs yi ñu ci jot a boole ceekit lu ñeel oxygène bi ñuy defaree ci réew mi di production locale bi yorin wi ak doxalin wi Abdoulaye Diouf Sarr ko nit ñi mooy tsunami bi mu war a jàmmaar lool gaa ñoo ngi koy songe fu nekk di ko songe nu nekk moom Abdoulaye Diouf te nag su moytuwul xaxar ak ŋaañ gi ñu koy def ci gestion covid bi mën naa xajamal ay ambition politique am tribune nañu booba Macky Sall a ngi jooy ne moom président problème yi dañu ko wër jamono ji coronavirus bi fii njuuj njaaj ak tappale yi ñuy wax ci coronavirus bi fee inondation yi di mbënd mi ca fa ca des l'observateur te daanaka ba léegi gisul kenn ci ay aliyem ko taxaw ne bàyyi leen jàmbur jàmburub yàlla faatooti na ci kasub réew mi xibaar boobe moom la journal Les Échos xëyee ci xëtamu njëkk ba xamal ñu ne benn détenu moo faatu ca kaso bu Bakel nee nañu waa ji dafa évadé ñu jàpp ko duma ko duma yu ñu ko duma mu mitti ba mu jële ci ay gaañu-gaañu jaare ca faatu Sedima mi leen di jagleel seen aliment bétail jur gi laadum ak jur gi tout ruminant moo leen doon